di xool dëgg-dëgg turu yàlla bu nekk ak bu dëppook sa rox ba ñu demee di jàng di calculer di jàng di calculer ba gis ni lumière na moo fonctionner moo ëpp doole seen calcul dañu ko teg jël salaatul fatiha di dëgg xam nga lañ loon doon wut la certitude absolue te gis nga la certitude absolue munoo ko am lu dul munoo ko am lu dul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 parce que rox day toll foo xam ni léeg-léeg mu tumuraange waaw ah. léeg gis nga ni ngay gisee nit dem ba yàgg ni moom dafa tumuraange amatul xarit léeg loolu dal rox waaw ah. léeg rox nekk ci doomu aadama bi ba yàgg xëy mel ni ku tumuraange xam nga ku muy soxla mu koy wettali mooy lumière ya nga xam ni ñoom la miinoon démb ca xayb laata muy gane àdduna ci monde jahad te lumière ya léegi